alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabii rahma wa kaashifil umma wa shafiil umma sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al aimma wa tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmil qiyaama mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tan leer ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu wal fajri yéen ñëpp rek maa ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd yàlla jagleel ko xeetu sayidina muhammad wi gën a màgg ma tibbee ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ci kartanal yàlla fas yéene sof li sosoon nag yow ci waxtaan yëpp paase ànd ci ak yéen di ci bànneexal suñu xol ci jëmmi sayiduna muhammad bile ak ci mayam yu for yile ak ci xasaa isam yum jagoo yile Ah, ba maa ngi woon ak yow daal ci bëri turam yi lim xam ci tur amul benn mbindeefu yàlla bu ko am ci tur ah, ba tax na sax boo demee ci yi dañuy wax ne bëri tur dafay tegtale tedd ak la tudd inna kasratal i yi tadullu ala sharafil musamma kon sharaful musammaam na ci moom ba tax na moom kenn rekk yàlla jagleel na ko junney tur yenn ya alquran a ko indi yeneen ya xadiis yu ñoo ko indi yenn ya dafa nekk ca téere yi ñu jiitu ña ten tawreet injiil ak zabuur ak furqaan ak yu mel noonu ñoo ko indi kon moom yonent bi moom kenn yàlla jagleel na ko junney tur boo demee ci muslim ak buxaari yu jëlee nañ ci jubayr ibnu mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna lii asma ana muhammadun wa ana ahmadu wa ana almaahi alladi yamxu llahu biyal kufra wa ana alxaashiru alladi yuxsharu nnaasu ala qadami wa ana alaaqibu walaaqibu alladi laysa baadahu nabiyun kooku muslim ak buxaari yu yëpp andi nañ xadis bi mu bokk ci xadisu jubayr ibnu mutin yonentu bi ne man maay muhammad maamam abdul muttalib moo ko ko tuddee woon bisab altina jëm juddu bam dellu see ci weeru gàmmu fukki fan yaak ñaar bis ba dellusi di fukki fan ak juróom-ñeent mu hootee di ñëpp daje mu jël am xar moo xam ne kuy la rendi ko ne tuddee naa ko Muhammad màkka gi yëpp attaqué ko ne ko lu la xir ci lile xëtt nga sujaada màbb ko dañoo baaxoo woon ku am doom wala sa tuddee ko turuwu njàng ju mel ni gaynde muy asadu wala tuddee ko tur wu weex lu mel ni xansalatu xettar wala nga tuddee ko lu mel ni xajaroog sayfu lu la xiir ci lii nag dañ ko daan def ñun ngir gàtt nga ci moom njàmbaar ak weex bu ñu xamee jaam nag tuddee ko tur wu rafet buñ koy jaay mu gaaw a jar ndax suñ jaam yi suñuy marchandise lañ abdul mutalib ne leen tuddee naa ko muhammad lu ma ca jublu asamaan ak suuf yëpp sant ko foofa de kon tur xuyu na borom waa asamaan ak waa suuf ak ñëpp bokk nañ sant sayduna muhammad sallallahu alayhi wa mu ne tamit sama tur bokk na ci ahmadu alquran wax na ko yaati min ba'di yasmahu ahmadu naka noonu maax yi mooy tekki mu ne ci man la yàlla effacé kéeféer sama tur ya xaasir ci la bokk mindee fi yàlla yëpp dañ leen pang ëllëg ci sama roon ndëggu aqib sama tur yàlla bokk li muy tekki sama gannaaw benn yonent dootul amati kon kooku moo ko waxal boppam xadis boobu muslim andi na ko ak buxaari yu mu bokk ci xadisu jubayrum nu mutaim boo demee tamit tabaarakallaahu ibnu saadu ak xakim ak bayhaqi yu ci même jubayri moomu mu ne man maa dégg kenn waxut ma sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ana muhammadun wa ana ahmadu wa ana alxashiru wa ana almaahi wal xaatimu wal aqibu kon man maay muhammad maay ahmad maay hashir maay maahi maay xaatim waaye maay aqib ci man lay yonentu yi di mujje kon yëpp ay turam la boo demee ca tabaraat yu ah, ci mujamul awsat wax na ko ci ne ana muhammadun wa ana ahmadu wa ana alxashir wa ana almaahi ah, naka noonu tamit boo demee ca imaam ahmad muslim ñu jëlee ci abi musa yu mu ne yonantu bi sallallahu wa sallama am na tur yoo xam ne moo ñu ko tuddal boppam sama lana rasulullahi nafsahu asmaa minha ma xafas wa minha ma lam naxfas mu ne xam na ki tur yoo na ne yonentoo ko tuddal boppam ñu dégg ko xam na sa yuñ mokkal xam na sa yuñ mokkalut yem tudd tañ mokkal ko muhammad cala yem tudd ñu mokkal ko ahmadu mu xaffaa cala alxasir cala nabiyu tawba cala nabiyul malhama cala nabiyul rahma cala am na ca yeneen yum tuddee boppam te ñun mokkaluñ ko kon tur yaa ngoog ak li ci xaju sallallahu alayhi wa soo demee ci téere ya jiitu woon amoon na tur yuñ ko tuddee woon naka noonu boo demee ci linjiil ak zabuur am na ca tur yuñ ko tuddee woon imaamu daylami wax na ko ca musnadul firdawsi jëlee ci abi tufayli mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi ashratu asma inda rabbi ana muhammadun wa ahmadu wal fatihu wal xaatimu wa abul qaasimi walxaashiru walaqibu walmaahi wa yaasin wa taaha mu ne am naa fukki tur man mii maay muhammad maay ahmadu maay fatihu moo nga jàng alfatihi lima uxliqa maay xaatimi wal xaatimi lima sabaqa maay abu qaasum qaasum mooy taawam bu góor maay haashir mbindeef yëpp da leen pang sama kanam maay aqib maay mujj ci yonantu yi maay maahi ci man la yàlla effacé kéeféer maa yaasin ak moo tax nga jàng yaasin wal quraanil hakim nga jàng taaha ma ansalna alayka al qurana li tashqa a boo demee nag ci ibnu addi mu jëlee ko ca ibnu asakir ñoom ñoom ñu jëlee ci ibnu abbas mun a yonentu bi dafa daan wax ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ismi fil quran muhammad sama tur ci alquran daan mooy muhammad jàng nga ko muhammadu rasulullah wa sallam maawo maa kaana muhammadun aba ahadim rijaalikum walakin rasulallaahi waaye sama tur mu ne ci linjiil na wa fil injiil ahmadu jàng nga ko ya wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmadu mu ne tawreet nag axyadu laa fa tudd bu fekkee tuddee nañ ma ko nag ndax man mi tabaarakallaahu maay jengal sama xeet wi wali safara kon nag loolu la mi ngi bàyyi ko ci ahada yuxidu man mii maay jengal sama xeet bi walis safara abu nuaym mu ne tuddee nañu yonent bi ca téere ya jiitoon ahmadoog muhammad ak maahi ak muqaffa ak nabiyul malahim ak demee ni xamtaaya ak faarax liita ak maaza maaza maaza maaza tuddee nañ ko ko ci téere yi jiitu woon naka noonu tim ibnu faris wax na ko mu jële ci ibnu abbas mu ne ismi fi tawreet ahmadu addaxuuk alqattaal yarkabul baira wa yalbasu shamlata wa yaj wa bil kasra sayfuhu ala atiqihi lii moo ca nekkoon kon mu ne lañ ma tuddee woon loolu la sama tur ci tawreet mooy ahmadu waaye tamit koo xam ne ku bari jàmm laa foo ma fekk maa ngi muuñ waaye tamit képp ku noonoo yàlla ba nga dem ci kër nga na leem nga ma ray la may kiy war gëlem maay kiy doy loolu toll ni damitu mburu may koo xam ne jaaseem ja ma nga ca kaw joggareem nga mu ngoog yëpp ci turam yi la ba tax na sax boo demee ca benn téere boo xamee day nekk day day sarxa turu yonantu bi moom ci boppam rotal na ca lu mat ñetti téeméeri tur ak ñeen fukk ñetti téeméeri tur ak ñeen fukk yu mu jëlee ci alquran ak ci hadis yi ak ca téere yi jiitu woon boo jëlee téere yi jiitu woon tawreet ak linjiil ak sabuur ak furqaan ak alquran mile ak hadis yi ñëw mu indi ko da nga fekk lu mat ñetti téeméeri turu yonent bi ak ñeen fukk kooku mooy sallallahu alayhi wa sallam moom tamit qaadi Iyaad wax na ne. yàlla jagleel na yonantu bi ba tuddee ko ca turam ya noo xam ne nu yonantu bi tudd rek na yàlla tudd na la yonantu ba tudd ba mat fanweeri tur yonantu bi dëppoo na yàlla ci fanweeri tur bokk na ci al akramu tur la ci tur yàlla yi tur la ci yonantu bi aminu demeet yi ci ay tur la bashiru jabbaaru xaq alxabiru dhul quwati rauf rahim shahid shakur sadiq azim alaafuwu alaalimu alazizu alfatixu alkarimu almubinu almuminu almuhayminu almuqaddis almawla alwaliyu nuur haadi taa yaasin yii fanweeri tur la yoo xam ne yàlla tudd na ko mu bokk ca turam ya sayiduna muhammad ñi dippee ko fanweeri turu yàlla yile kon tudd tur ya yàlla tudd ñi sañ la koo xooxee ba mat fanweeri tur jénn jëmm dong moo ko jagoo ci kaw suuf mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama a boo demee tamit waqat waqaa lana iddata asma uxar yeneeni tur yooya bokk na ca ahadu asdaqu ahsanu ajwadu ala amiru naahi albatinul barrul burhaanu alxaashiru alxaafizu alxafizu alxasiibu alxakiimu alxaliimu alxayu alxalifatu addaaci alraaficu alwaadixu raficu darajaati salaamu sayidu shaakiru yëpp ma limal la saabiroog saaxiboog tayibu taahiru alcadlu alcaliyu alxaalibu alxafuuru xaniyu qaa'imu qaribu maajidu mu'ti naasiqu naashiru alwafiyu yëpp ak xaamim ak nuun yëpp tur la ci tur sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon ku bari tur la wax naa la ko am na lu mat junney tur kenn koy fekk mu xam junney tur nag xamut ku sayduna muhammad moom la yàlla jagleel xare turam wi ca turam wa moom yàlla boo demee xasaan xasaan ibnu saabit ma ngi koy tagg yonantu bi ne agarru alayhi li nubuwati xaatimun min allahi min nuuri ni yaluuxu wa yashhadu wa du wa dammal ilaahu isma nabiyi lasmihi ida qaala fi lxamsi lmuaddinu ashhadu wa suqa lahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hada muhammadu wax ju siiw jooju xasan ibnu saabit a ko waxoon mu ne kii mooy ku tedd ku siiw ki di ki mottali nubuwatu mooy ki nga xam ne leer la gu baxee ko ci yàlla di fës rek mooy koo xam ne yàlla tàpp turu boppam wa ca turam wa noddukat bi saa yu noddu ki julli juróom yi bu ne ashhadu an laa ilaha illallah rek wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi la cay teg waaye kii mooy koo xam ne yàllaa ngi ko xaree ca turu mahmudam wa yàllaay mahmud yonentu bi muhammad kon muhammad mustaqun min mahmud moo tax ñoom ñaar ñëpp ismu mafuul lañ kon yonentu ngoog sallallahu alayhi wa sallama ah, bayhaqi yu wax na ko ibnu asakir mu bàyyee ko ca yoonu sufyaan ibnu unay uyaynata mu jëlee ko ca ali ibnu zaydin moo mu demee noona ñoom ñëpp ànd nañ wax loolu ñu ne daal euh, wax nañ ne fatazakaru ay bayta ahsan ay baytin ahsan fi ma qaalat ul arab qaalu qawluhu wa suqa lahu min ñoom ñi dañoo dajee woon arab yi yàlla may leen ñi rafetal làng arab lool mën a way ñu ne waaw way yi mosa way bu ngeen gis ne moo ci gën a rafet bañ dajee ñoom ñëpp ñu ne bayteeb xasaan ibnu saabit ba ci gën a rafet wa suqa lahu min ismihi li yu jillahu fathul arshi mahmudun wa hada muhammadu bu la neexee tamit nga jàngee ko wa saqa lahu min ismihi li yu jillahu yàlla xotti ca ngir feeñal yonantu bi le fathul arshi mahmudun wa hada muhammadu kon ñu ne bayti bi moo gën a rafet ci lu arab mos wax kon xam nga ne loolu nekk na lu rëy rëy rëy kon yonantu baa ngoog sallallahu alayhi wa ci mayam yu rëy yàlla Muhammad a ngoog ca mayam yu fes ya yonantu baa ngoog sallallahu alayhi wa sallama ak ci ngëneel yu rëy yi ko yàlla defal yoo xam ne doo ko fekk ci kenn moom kenn kese moo ko jagoo kooku mooy sallallahu alayhi wa sallama di sayyidul awwalina wal axirin di jëmm joo xam ne amul benn yonantu bu mos a doxal mission am balaa jeex rek déclaré na mbiru yonantu bi euh. loolu bu sayru yi wax na ko ma madat fatratu min rusuli illa basharat qawmaha bikal anbiyaau moo taxoon yonentu yàlla suleymaan ba mu defee rixlaam bu siiw booba ànd ak jinne yeeg njanaaw yeeg nit ñi ba fay fa madinatu mun a war a yegg tey tollu fa mu nekk xàllab kerta mu ne fii ma taxaw moo nekk kër ak gàddaay ak mujj ak yonentu yi ñoo ne ko suñ digganteeg fi nga koy waxee ñaata at la mu ne à peu près junnee at lii ma wax nag ku ko fekkee nag ko jotalal ku ko fekkee wut sallallahu alayhi wa sallama Tuubaa moom da koo bañ ba ba mu fa ñëwee ci xisa bu gudd tabaarakallaahu ba mu fa fanaanee mu xoote ne lu ngeen euh, lu ngeen lu ngeen gént ñetti borom xam-xam yépp bokk luñ gént ci moom moom moom dafa mujj rekk tabax ko ay cité ne nañ dëkk fii ma tertoo xaale ko yonantu bee kër gàddaayam gile jël kër ga ca gën a baax dëkkal fa borom xam-xam ba gën a màgg ñooña nag ñoo meññi abu ayubal ansaar yi ñu doonante leetar ba mu bindoon di jaayanteeg yonantu bi booba booba ñëwagut moo tax danaa la yeggal sax ki ñi gëmoon yonantu bi te fekk yonantu bi juddoo gut tubaab mooma ca la bokk danaa la ko wax boo toppee suñu waxtaan yi rek pour walla ne na yonantu kenn du moom su ko defee tamit noonu la ko yàlla mayee téere ya ñëwoon jiitu woon ko junjoon naa la ne bégle woon nañ ci moom te fekk na ñëwagutoon kenn ku ci nekk wax ca moom ay may te fekk na booba moom ñëwagutoon fi baadil basaa'iril waaridati fil kutubi samawiyati loolu laa lay bëgg a mottali lay waxtaan wi fekk loolu nag njëkk mu am taxrif ak tabdil nga xam ne boroom xam-xam yi saxal nañ ca lañ ca toxalee mu ñëw ñu ñu bégle ko ci yonent bi te booba ñëwagutoon al alaamatul muhaqiq ash-shaykhu rahimahullah al hindiyu wax na ko ca téeréem bu nga tuddee izharul xaq mu tudd ca lu mat fukki bégle ak juróom-ñett yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ca téere ya jiitu woon alquran mu nekk ay layu leer naññee ñi ciy bégle dikk ak yonantu bi te booba yonantu bi ñëwagut bégle gu njëkk ga boo demee ca même téere booba ca bunta fukk ak juróom-ñett ca mu tëlee ko ca tawreet mu ne nekkoon na ci wax ji ma bëgg a wax fa qaala rabbu lii nicma jamiu ma qaalu wa sawfa uqimu lahum nabiyan mislaka min bayni ixwatihim wa ajcalu kalaami fi fammihi fi fammihi wa yukallimuhum bi kulli cheyin amuruhu bi wa man lam yutic kalaamahu alladi yatakallam bihi bi ismi fa ana akunu almuntaqim min dalik fa ama nabiyu lladi yajtariu bil kibriya wa yatakallamu fi lkalaami alladi yatakallamu bihi rabb fa haadihi takunu laka ayatan kon lii nekkoon na ci tawreet mu ne mu leen sama borom bi ne li ngeen wax lépp dégg naa ko fa xalsi naa yónnee yónantu boo xam ne day mel ni yow yonent yàlla Muusa mu ñëw ci biir ay bokkam di waxee sama kàddu di wax sama sama ndénkaane ku ko topp rekk kooka danaa ko texeel ku weddi ay waxam yi muy jëlee ci man man yàlla danaa la mbugal danga nga dajeeg man mu mbugal la te kenn du la ca mënal dara kon loolu nekkoon na ca yuusoo tamit mu yuusoo nu kaalib comme ni nga xamee ne wax nañ ko ca yahood yaag ci Isa comme ñi nasaraan yi wax yu sam nu kaali bégle woon a dikk ak yonantu bi yonantu yàlla a dikkam bi yooyu yëpp ku mu ci ñoom ñi wax nañ ko di ñëw di wax dikk ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca seen téere ya te fekk booba yonantu bi ñëwagut moo tax sax alquran na nga juñu ne huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin bisaaraat yooye boo ko toppee lu bëree bëri la ak la yonent yàlla ibrahima ñaanoon ak ismaila rabbana wa buath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim yile yëpp ay basaa'ir la yoo xam ne yonantu ya ñoo ko doon wax ci dikk dikk ak yonantu bokk na ci li alquran tudd laqad manna allahu ala almuminina iz baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaaba wal hikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin kon basaa'ir yi bari na ci yuy bégle dikk ak sayduna muhammad te fekk na booba ñëwagut yonentu yëpp joxoñ ko téere yëpp junji ko ba junji meloom waa ak téereem ya ak melokaana wa kooku mooy sallallahu alayhi wa di jëmm joo xam ne ku ko sopp yàlla soppi la jëlee la ci texe di yóbbu la ci texe jëlee la ci xat-xat yóbbu la ci yaatu-yaatu jëlee la ci tabaarakallaahu beekoor yóbbu la ci naataange moo taxoon bàyyi taxa ba wax na ko abbas ba ñu def seen baaw naan nga ndeysaanam pour yàlla ji taw mu xetle ko ki darajaay yonantu bi moom nga dégg mu ne ko wa abyadu yustasqal ghamaamu bi wajhihi simaalul yataama ismatun lil aramili kooku ah, bàyyi taxam bu tedd ba am moo ko waxoon ci xaqam eh, sallallahu alayhi wasalama sallama te mooy abu taalib nga xam ne buñ mosaan a def bekkoor rek soxla yàlla ji taw bu yonentu bi génnee rek yàlla ja taw bi mu demee nag ba yonent bi génn àdduna Omar Xataab di def baaw naan nag taxawal Abbas mi bàyyi yonent bi di di taxu yonent bi ne ko gisa bàyyikat lañ daan xettaliku nekkatut fi ci saahir ñi ngi xeeñtu deretam ja ci yow waaye bam ko defee tamit yàlla ja taw na bu séeru yoo koy tagg ne ak akrim bi xalqi nabiyin saanahu xuluqun bil xusni mustamilun bil bishri muttasimi ka zëhri fi tarafin wal badri fi sharafin wal baxri fi karamin wa dëhri fi himami wax munu koo gën a rafet mu ne lëf lu màgg xéemal bindab yonantu ba bind ba la muy rafet rafet la ko rafetal mooy jikko bu sa bind rafetee sa jikko rafetut sa jikko ju ñaaw ji dana dem ba ñaawal sa bind bu rafet bi boo fi rafetoon sol fi dara mu rafet lool nga téye galanab cigarette sa jikko ju bon jooju di la tuxloo moo dem ba ñaawal sa sañse bi wala nga commencé di përëx përëx yi waaxu mbaa ngay daw mbaa ngay saaga mbaa ngay xaste mbaa ngay summeeku di xeex wala nga toog di jëw wala ngay rambaaj sa jikko ju ñaaw ji dem na ba ñaawal sa bind bu rafet bi mu ne daal yonent bi yàlla may na ko taar boo xamee dafa làmboo tàlliwaayu xar-xaramam ba mu ne daal fa mel ni tontuur ci xiw yaramam wa dafa naay nooy nepp rafet boole koog di lerax ba mel ni tontuur waaye tamit dafa tedd di melxati leer di jolli ba mel ni weer wu xam fukki fan ñeent ku tabee la lu fanaan ci loxoom ba dafa guddee ñëw waaye moo gën a tabee géej gi ndax géej ndox lay joxe yonent bi wurus ak xaalis lay joxe moo tax maam xalifa daana wax ne kuy tëkkale tabeeg yonent beeg ndoxam géej baa nga koy tëkkaleek taw juum nga ñu ne ko lu tax mu ne taw ndox lay joxe te taw day sebeti yonent bi nag wurus ak xaalis lay joxe te moom mayam duwut luy sebeti wa axta al qawla man bi shamsi shabbahahu fa shamsu min nuurihi taxtaalu fii xulali noonu la ko toppee ñay nire la yonantu beeg jant juum nañ jant bi day sox te yonantu bi du sox ñay nire la yonantu beeg taw juum nañ ndax taw day sebet te yonantu bi du sebeti demeet noonu nga fekkee tamit xaadimu rasul si Ahmad Bamba ma ngay waxee loola tamit ca ca raayu yàmba fala taqisum na abdalaahi bil fudala inal kawaakiba yux fiiha sinimaaru Euh, dem na ba ne euh, danañ bul tëkkale gattax ak garab saa yu garab xasee feeñ rek guddaayu gattax folleeku bul tëkkale làmp sondeel ak weer saa yoo xamee na nii làmp sondeel bi taxaw na ba ba leer fal ko bu leer gi bu weer wi jollee rek mu foleku demeet kon nag bu seyru ne yonantu nag moo ëpp jamono hitte xam nga jamono gi ni mu bëree hitte bat bu set yaa ngi ci lii bu ëllëgee ma ngi ca lale mu ne nag jamono yonantu fa bëree bëri hitte ba mel ni jamono kon kooku mooy yonantu bi kooku mooy sallallahu alayhi wa sallama kooku mooy xayrul awalina wal axirin kooku jëmm ju tedd ju amul morom kuñ ko tëkkaleeg nax nañu la koo koy tëkkaleeg tamit ñu tëkkale la ko tabaarakallaahu tamit ndax nañu la yonentoo ngoog sallallahu alayhi wa sallama yonentoo ngoog nga xam ne bu sayru yu nee na bu yàlla ne waaw yonentoo fay njëkk bu yàlla ne déeréet kenn du gis sayduna muhammad fala ahadun abara fi qawlilaa minhu wala naami kooku mooy sallallahu alayhi wa sallam xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wi nag ma sof ak yow li ma sosoon ak yow ci yonantu bi nga xam ne ca tabeem ga ci la jamono ji amee muy àdduna bi ca xam-xamam bu yaatu bu lëw ba ca la lawhul mahfuz di tëbbee ak xalimba ga suba ci waxtu wi incha allahu wasalaamualeykum wa rahmatullahi